dañoo ñëw nag ci plage yu BCEAO daal di choisir interroger quelques nit ñu daal di ñu wax la lañu xalaat ci cas de noyade yo parce que ñenn ñi dañuy faral di utiliser plage interdite yi ñu xam ñu daal di doxantu ci touti tàllal suñu micro quelques personnes ñu daal di wax lu ci xalaat ci tembe euh maa ngi tudd Ibrahima Fall maintenant je sauveteur plage BCEAO Yoff.

mais dañoo seetlu ne cadre de noyade yi dafa bëri trop temps yi léegi loolu la mu sa xalaat. Cadre de noyade chaque année day gën a bëri parce que euh, nit ñi dañu conscient wu que ne plage interdite wala plage autorisée yëpp mën na am cadre de noyade c'est parce que euh, ñi fi fréquenté donc duñ mën fay majeure partie bi duñ mën fay donc loolu mooy indi cadre de noyade yi te li ko indi lu lu lu gën a doy waar mooy du respecter consignes de sécurité yu maître nageur di leen jox. mais est-ce que yaakaaroon ne jeunes léegi dañuy méfier wu surtout xale jigéen dañuy méfier wu ci maître nageur yi parce que seet nañ fi am na ay cas yoo xam ne maître nageur yi dañ leen accuser d'attouchement est-ce que du loolu moo tax léegi ñuy méfier wu ci maître nageur yi. ñooñu ay faux maître nageur lay parce que maître nageur rôle am mooy sensibiliser xam nga baigneurs par rapport ak danger yi am ci ci ci plage yi bien sûr parce que ñun dañuy lutter contre la noyade comprends la dañuy xeex pour bañ lab bañ am mais ñii nga naan dañu ay maîtres nageurs lañ si biir ndox bi naan kaay ma sang la boobu ñooñu dañu bëgg profité si si sang si sangu yi rek ci ci ci yooyu quoi ci bon yooyu donc mais maître nageur dëgg dëgg dëgg dëgg uniforme lay sol yaa ngi gis xam nga man boo ma gisee di nga xam ne maître nageur laa man talu ma sang parce que maa ngi jël sama bët bi sànni ko ci géej bi pour xool nit ñi war a am jafe-jafe ma daw dimbali leen plage boo xam ne dañ ko tere pour sangu donc maire yi jël nañu ay tableau def ko fa nit ñi parfois moy seen dëgër bop bi may wax rek nit ñi parfois ñoy daaneel tableau yi parce que duñu respecter respecté consignes de sécurité yi loolu ci consignes de sécurité lay la bok parce que euh, plage boo fay wàcc donc plage yi nekk si Dakar yëpp boo fa demee di nga gis ne tableau yu ñu bind bañat autorisé wala baignade interdit parce que plage yu 26 plage yu nekk Dakar yëpp amna plage yo xam dañ leen classé autorisé amna plage yo xam dañ leen classé non autorisé mais plage non autorisé nit ñi ñoo fa ëpp di fa dem comme plage bi nek ni plage parce que c'est une plage euh bo xamné baignade bi dañ baignade bi dafa dangereuse mais elle est surveillée donc légui nit ñi fi lañu upp ñëw donc ñun dañu obligé di leen jéem canaliser par rapport ak euh, zone sur zone zone autorisée quoi effectivement cette année-ci cas de noyade dañu commencé bari trop dañu commencé démb rek amna ben corps déjà sans vie bu nous, génn yof Yoff village ñu ngi koy regretter parce que lolu lu doy war la état bi tam ñu ngi leen di lancer ben appel encore une fois man tout le temps dama jëg ci ko wax moy dañu war renforcer plage ak ay maîtres parce que amna plage yo xam dañ koy fréquenter té amul ben maître nageur bu fa nek té lool c'est pas normal c'est pas normal parce que ay vacanciers ñoo ñëw vacanciers yi xamuñu la am na xam Thiès lañ jógee nañ mom bal nous avons des le bon vacanciers dañuy région à Dakar nous à Dakar vers les plages wala ñu ànd ak copains yi plage mais nous danger nous xam c'est surveillé non c'est non surveillé parce que d'ao, juróom fukki nit ak juróom ñàkk nañ personnes c'est trop C'est été donc nous ngi leen di ñaan plage en danger ñu vers la sécurité di waxtaan ak ñoom bu ko defee ñun dinañ leen essayer sensibiliser parce que ku bëgg a dégg nag di nga dégg am na ñoo xam ne tey dañuy lekk seen kër ba suur ñëw rek jubali plage waaw xamuñu ne moment boobu yow war nga mën a toog deux heures de temps soog a dugg ci géej gi mais am na ñoo xam dañuy jógee seen kër doo leen mën a xam xàmme doo mën a xam ndax kii léegi la añ donc dañuy ñëw rek ko doo dugg si biir am na ñoo xam ne aussi dañuy entraîné ba tàng jër ñëw rek plongé te loolu mën na indi arrêt arrêt cardiaque loolu mën na indi arrêt cardiaque parce que amna cas de noyade ñuy gis yo xamné ne du noyade euh, ni rek quoi moy dafa dafa dañ ci tek leneen lo xamné bokku ci parce que si bo entraîné ba sa yaram tang donc y a une différence de température entre le corps et l'eau différence de température de température bobu mën na indi lu ñu ooy hydrocution moy exposition prolongée soleil bi nga dugg ak nonu si géej da ngay dee donc loolu il faut que ñi xam ko encore une fois

j'ai choisi cette plage-là parce qu'il euh, il y a moins de vagues et euh, il y, a moins d'accidents en fait. vous savez que la BCAO c'est une plage interdite mais elle est sous surveillance donc. Justement c'est parce qu'elle est sous surveillance qu'on est là. Et je pense qu'il faudrait, il, euh, il faudrait qu'on on suivait plus les jeunes, que les mamans les suivaient avant de sortir, avant de partir, et, et qu'il y ait beaucoup plus de sécurité. Donc vous pouvez dire qu'il n'y a pas assez de sécurité Non, je peux le dire n'y a pas cette sécurité. Parce que là, on est en vacances et c'est ma première fois de venir dans cette plage-là et euh, je vois pas assez de sécurité. J'ai vu juste deux jeunes en train de... et c'est pas suffisant. Euh, moi, je m'appelle euh, Sam Mohamed Irénée. Donc, je suis burkinabé. Je suis en vacances à Dakar pour deux jours. Alors, pourquoi avez-vous choisi la BCAO comme plage bon, c'est ma deuxième fois de venir ici, ici à la BCAO je trouve que bon, c'est bien parce que la dernière fois, c'était en août, passé en 2012, je suis venu ici, bon, ça m'a plu. Donc euh, c'est pour ça que je suis venu ici encore aujourd'hui pour se Est-ce que vous saviez que la BCAO, c'est une plage interdite, mais elle est juste sous surveillance ah, Je n'ai jamais su ça, je n'ai jamais ça. vous êtes d'accord que la sensibilisation, ça manque un peu Oui, ça manque, ça manque. Parce que si tu viens, tu vois les gens, tu crois que bon, c'est pas interdite. Voilà, c'est un peu ça quoi. ah man maa ngi tudd Mansour maa ngi dëkk Guédiawaye mais li ma indi ci place mooy man téer la maa ñëwoon fii sama benn femme bi ñu ñëwoon mais dama dem fekk ma ko foofu léegi ma añ ba pare ci këram ma ne léegi xaaral ma ñëw fii féex lu tuuti. dama yaakaar ni moom place fi ñëwee moom lu may rafetlu mooy mooy mooy bu ñu fi ñëwee moom mën nañ ñëw ngir féexlu ak sangu mais tamit maa ngi fi maa ngi dégg tamit yoo xamante ni moom. neexul. comme comme maanaam suet comme li ñu temps yii passé maa ngi toog di seetaan télé mais ñu ngi wane yu yoo xamante ne nii loolu ànduma ci même am na benn grand bi fi taxawoon léeg-léeg maa ngi toog ne mais maa ngi déglu muy wax lu rafet di naan sàngara di di dugg ci place bi loolu rafetul nit bu mën nga ànd ak sa ki nga bëgg wala nga ànd xarit ngeen ñëw fii ngeen féexlu ndax place dafa neex daal dafa neex imagine nga toog brise bi di la dugg dafa neex ànd ak say xarit dafa neex mais ñëw naan sàngara dugg ci place bi keroog maa ngi seetaan télé ay affaires yu salté loolu rafetul di Sénégal la ñoo ko bokk nañ ko defar su ko defee képp ko ñëw mën a ànd ak ñun mën a ñëw mais dugg ci place bi di naan sàngara def jëf joo xamante ni jëf yu ñaaw loolu rafetul daal dafa am ñoo xamante ne da nga leen di jox liggéey mais duñu respecté liggéey bi dañuy dem di ci boole yeneen yoo xam bokku ci waaw man loolu laay wax daal euh, maître nageur yi dafa am ci ñoo xam ne euh, bu leen ñëpp doon déglu benn jafe-jafe am parce que dafa am ay ñeneen ñu nekk ci biir plage bi di sangu ak show yi wax ñom ay maître nageur leen mais ci kaw lolépp dil la xam nga lolépp dil la parce que da nga gis ben show bëgg sangu ak mom fa nga jëm jaar ko fofu pour wax ni ko man maître nageur kay ma sang la pour am ci ben euh, ben plaisir bo xamni moy lolu ba far suux ko bu yow yalla xam na ni ñom en général ñom ñuy wax lolu sax kenn mënuñu ci sangu kenn mënuñu fey dañu duggal doomu jambour dul ci lo xamni ne xamuñu ko bu suxé ñu daw dem génn bàyyi ko fa amna yo xamni moy lool do comprendre mais nak amna ño xamni dañu ñëw pour sangu seulement ñu loolu fi indi ku nekk ak adduna bi ku nekk ak foo demee da ku nekk da nga ko fekk ku ne te ñëpp bokku ñu yam loolu yàlla moo ko def ku nekk la la fa indi c'est ça le problème man sama liggéey beñe laay jaay fii beñe laay jaay yàgg na di jaay fii presque quatre ans maa ngi fii mais plage bi plage bi amul benn problème plage bi eh, am na sécurité bu baax mu noo def dara bu nga xam ne dafa bo bon fii amul xeex amul xulo amul dara fii su ñu la gisee ngay def dara lu bon si ndox bi sax dañu lay yóbbu si chef de nageur bi fii jaay bi day day continuer normal dañuy jaay normal surtout dimanche dimanche place bi dee fees fii daal ay sécurité boo xam ne dafa baax moo nekk fii amul benn problème fii e sol yi bon yooyu wala defal yi bon yooyu amul fii ay 6 heures dem yooyu dañuy tàkk ñi ngi pour ñu pour ñu génn sa ndox bi parce suñu lay bàyyi parce que ñoom dañuy wàcc suñu lay bàyyi lu la dal fii doom du ñu fekk moo tax 6 heures 6 heures demi de leen dàkk yëpp ngeen génn su ndox bi nga ñibbi kenn du nekk su ndox bi air boobu mais depuis ma nekk fii mosuma gis nit mu lab fii mosuma ko gis parce que suñu la gisee ngeen dem fu sori dañu lay jël si wala ñu soufflé nga ñëw nga dellu si xale yu ndaw yi xale yu ndaw yi comme genre ñi ni du ñu nangu ñu dem fu sori fii nga nii fii la ñu yem dañuy am benn boom bi ñuy def fii. pour ñu xam ne côté bi dafa dangereux côté bi ngay mën a nekk côté boo ko xam ne dafa dangereux dañu lay woo nga ñëw côté bu nga xam ne dangereux loolu rek xam nga sécurité la. Mamadou Diop laa tudd quoi dama ñëw si plage pour feexlu xam nga ànd ak samay cousine ak samay raq ñu ñëw toog fii nii pour bëgg quoi. léegi yow nan nga gisee plage bi si yow ni ko xale yi jëlee temps yi. waaw ah, nit ku nekk ni nga koy dundee rek parce fii nii xam am na ñu ñëw fii fii pour bëggee xam am na ñu ñëw fii xam nga pour. pour neneen quoi ku nekk ku nekk lu la fi indi daal mais man moom xam nga sama waa gaal leen fi indi mooy ñëw ci place bi sangu xam nga heure bi jot ñu jaar ñu dem ñibbi. kon yow da nga bëgg xam ne plage bi à part béykat am na si am na leneen si parce que des fois man man jour la damay entraîner parce que des fois ay vingt damay génn jaar ni ci plage bi di daw mais dama fiy gis n'importe quoi gars yi dañuy nekk suufu ci suufu tente yi xam nga mooy loolu ak seen copine xam mais ñëpp yamuñu tamit quoi. après da nga leen di xool xam ne ñii nii xam nga li ñuy dund mooy loolu peut-être seen seen esprit foofu la toll ñu koy def. kon da nga bëgg wax ni su ma la déggee bu baax ni sécurité bi sa reste un peu à désirer. waaw waaw xaw que bu ñu fi nekkee ba ay des fois da nga fa gis ay gendarme sax seen i fas et tout ça mais ñu fi nekkee ba ay vingt et une heures ba ay dix neuf heures dix neuf heures dix rek ñoom dañuy dem. après fi nekk commencé def. waaw après dañuy def n'importe quoi des fois da nga siy yoo xamante ne da nga naan ñii si ay julli lañ. waaw man Amina laa tudd dañu ñëw juste ànd ak euh, suñuy petite sœur indi leen ñu jël tuuti air. léegi yéen da ngeen ñëwoon pour jël si air mais am na ñoo xam ne comme ni ko sànq sa grand waxee rek lu bon moo leen fi indi léegi la nga xalaat ci loolu. waaw xam nga nit ñi moom yamuñu am na ñoo xamante ne loolu moo leen fi indi mais euh, la plupart fii man pour man ñi fi ñëw dañu ñëw juste pour euh, sangu wala toog waxtaan en famille waaw. da ngay plage bi boo xoolee nii fi mu ne nii gisoo kenn ku taxaw pour xool xale yi fan la ñuy sangoo ou pas xam nga loolu la pour yow sensibilisation bi dafa des dañoo war a yokk. Ah, waaw si des na pour man Wa waaw bu ñu ñëwee ñi ànd ak xale itam ñu surveiller xale yi parce que comme amul euh, fi mu ne nii kenn ku taxaw pour surveiller leen ñi ànd ak xale yi ñu surveiller leen xool fi ñuy yem xam nga loolu la pour l'instant après euh, bu nekkee mën nañ am tamit euh, yu ñuy jàppale baax na ci trop parce que mu ngi bëri bëri na. démb am na ko fi laboon benn xale. loolu ce n'est pas normal parce que policiers dañoo war a ñëw xool géej mhm. surveille xale bi daa dugg ci géej bi di sangu noonu noonu rek géej bi yóbbu ko mu mhm. lab kenn gisatu ko mhm. ñu def attention parce que géej ji wóorut maa ngi tudd Babacar Diène dëkk Yoff village bon di liggéey ci mairie bi depuis 2002 ba léegi

démb dañu fee si la signalé fi ben cas de noyade. cas de noyade démb bon amna fi mais labe wu fi dal. labe wu fi mais fële la deewee ci côté beulé. fële la labe mais daf fi terre. dès le début lañ ko ron teel a def jaarale ko ci école yi ñu sensibiliser len ci étape bobu d'abord ñu magalé ko suñu ñëwé ñun dañu leen di accompagner rek mais lolu amul fi Sénégal parce que noyade rek la gis.

kon dañuy dal di génn ci biti dal di ak ay parents ñu dal di wax ñu lan lañ xalaat tay ci thème bi bu ko defee ñu dal di yeggale suñu reportage tay ji wa fi ñu ngi ci yof yoof ci pratiquement tout le monde y va bes bu nek ñëppay dem plage mais nak man samay dom je préfère suma suñu naré dem ma andax ñom wala ben responsable samay mak samay rak andax ñom parce que so togué sa kër teud xeyna ku góor ki liggéey wala ku jigen ki mais toujours sa kër amna responsable bu fa dess

école bi rek mënul téye sa doom ndax sans vacance du am noyaat mais bu amee vacance ku nekk da ngay bàyyi sa doom mu def lu ko neex da am na daara am na yeneen y a beaucoup d'autres choses foo xam ne nañ fa yóbbu xale pour ñu dem am jumtukaay yoo xam ne nañ fa nekk mais mënoo leen bàyyi rek si boson bu ñu amee pare nga bàyyi leen ñu dem naan dañu parce que ñun ñi xamante ne ay lébu lañu di dem si géej gi sax am na heure boo xamante ne ñun duñu ko jugg si géej gi marché xamante ne si kaw gi lañ dëkk xam nga li maanaam ñun danger bi si am ñun xam nañu ko mais ñoom xamuñu ko xale yi ñoo dëgër boppa parce que des fois bu ñuy dem géej seen parents duñ leen yëg dañuy tàggu école baa ñu tàggu seen kër xarit dem plage duñ leen yëg parce que man gis naa si ñoo xam te dañu def dañu noyé mais seen parents yi yëguñu leen dañu mujjee jël seen identité di ko xool dem seen parents yi di leen woo ay téléphone xam nga ko kooku yëgul doomam fu mu dem loolu lu ko gën a metti mooy li ma la wax rek loolu rek moo si nekk. la nga xalaat ci xale yi dem plage bi. plage baaxul xale yi dem plage. képp koo xam ne daal seen kilifa ñu mën nañu def ndax place baaxul ndax géej gi wóorul surtout géej gi nawet fi mu nekk nii en mu tudd sa vacance jot na nañ leen dugal seen seen doom yi ek kii nu mu tudd alxuraan ñuy dem jàng ji waaye place place wóorul damaa yor doom ab sët sa ma nga sa kër ga waaye buñ na géej ma ne ko tey boo demee géej tey dinaa la rey surtout nawet bi loolu baaxul nañ leen téye suñu suñu doom yi place pour place ba la ngay wax sa morom mama yi nga xamne ne ñu ngi lay sétal parce que nit ñi neneen lab yu bari ñom ñoko war na ñom ñoo do surveiller sen doomi waaw ndax xam nga xalé ñom dañu sop fi mi nek ni sen day yaang ci biir kër ga légui bu ñu génné di dem sen yaay duñ leen yek bu ñu génné di dem sen yaay duñ leen yek barki dem ba sama seut den dem nak wa yeguma ko bi mu ñëwee man xana nga dem geej mu ne ma sama dekkondo yi laa àndoon la ma ne ko suma bëss mo la jëttee geej dama lay door ba dee ma xabar ko bama ko xabalé ba légui dama geej xalé yi ñom ni ñuy def seen ndey yaa ngi seen biir kër ñu demuñu ma waaye xale yi ñoom li ñuy def seen ndey yi duñ ko yëg. kon waxtaan bee des daal. ah waaw kon waxtaan bi moo des mën na ko waxtaan bi moo des <laughs> merci beaucoup. <laughs>